Malick Kane Ndiaye juróom-ñeent fukki at yu tegal juróom-ñeent ñàkk bakkanam ci waax yu ngor àndoon ak doomam Limaamu Ndiaye ak ku ñuy wax Moodu Maar ñoom ñaar ñi ñu mujjee lim nag ba tey ñu ngi leen di wër ci waax yu Sénégal caaroy géej yeewoo ak naqar gannaaw ba tiis gi amee. ajjuma bi paase ñoo jullindoo juma biñ jullee juma ba pare ñu ñëw ci kër gi añ bi ñu añee ba pare ci la tàggoo ay 3 heures 3 heures et quelque na mu ngi dem géej. ànd ak taawam ak Modou nga xam ne xaritu doomam la donc bi ñu demee géej ajuma bi donc bi ñu demee ba heure bi nga xamante ci lañ daan teer teeruñu sa femme a alerté donc bi ñu bi mu alerté nag ci lañ commencé bàyyi xel maintenant dem ñi nga xamante ni mooy mool yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci tefes gi mu commencé leen ko wax donc euh, association nag des pêcheurs ANAPES aussi def ci liggéey bu am solo à travers leur président Moustapha Diop donc ci loolu ñu commencé recherche yi di commencé recherche yi ba le samedi le samedi 10 euh, ci la ñu woo nañu am na ay débritu gaal yoo xam ne ak ay mbaal gis nañ ko fo fële ci Wakaam donc biñ ñu waxee ne gis nañ ko ci Wakaam ñu envoyé fa une délégation pour ñu xool mën a identifier matériel bi ñu gis ba xam ndax seen matériel la donc bi ñu demee identifier matériel bi effectivement il s'est trouvé que seen matériel la donc ci lañ xam ne effectivement ñoom seen gaal dafa toj ci géej maintenant activer réseau yi nga xamante ni ñooy liggéey ci géej yëpp ak marine sénégalaise donc marine sénégalaise nekk recherche mais malheureusement jeune bi nga xamante ni fi seen gaal toje muy ci banque bi du jeune boo xamante ni gaal yi ak bato yi mën nañ fa dem pour di def ay recherche donc ci loolu ñoom fi seen gaal toj sax am na bato bu mag boo xam ne bato boobu déjà moom bato ciment la foofu la góoto gi duggoon pour te diir que jafe na foofu euh, gaal ta fa ba pare ay survivants donc ñu continuer recherche ba hier matin cinq euh, sept heures du matin ci la ñu woo xamal ñu am na benn corps boo xam ne gis nañ ko fële ca Ngor biñ ñu ko waxee ñu dem bi ñu demee on a trouvé aussi sapeur pompier sur place donc ñoom ñu jël seen i canon dem ba ci kii bi à deux cent mètres presque cent à trois cent mètres ñoom ñu génne corps bi bi ñëwee ñu identifié ko ci lañ gis ne effectivement Malikat Ndiaye la muy suma grand frère donc moom peut-être da doon jéem a féey parce que si euh, siraas bi mu euh, yëre yi mu soloon muy yëre géej gi bi ñu jotee koor bi da ngay gis ne yëre yi daf ko simmi bot yi mu soloon aussi daf ko simmi ba dese kilote ak benn t-shirt pour di féey xam naa doon essayer féey parce que moom moo gën a man ñi mu àndaloon moo leen gën a man géej peut-être après par crampe loolu moo révélé par crampe xam naa ci la lool mais bu doon bu doon jamono tàngoor peut-être que dina féey ba teer quoi donc ci lañ xool muy kooram ñu yóbbu ko Dantec ci lañ ko identifié ba xam ne moom la après ñu loolu mais ci même journée hier bi ñu annoncé ñu waat ñu aussi beneen corps boo xam ne mu ngi woon port donc bi ñu annoncé corps bi nekk port ñu dépêché une délégation aussi ñu dem fa bi ñu demee vraiment ñu remercier aussi commandant bi parce que bi délégation bi demee accueillir na leen jox leen ay orientation ne leen dem leen hôpital Dantec bu ngeen demee ci morgo bi mu nga fa après ñu identifié ko mais bi ñu demee hôpital Dantec identifié ko leen xam ne suñu corps quoi donc waaw du ba bokkul ak ñooñu parce que il s'est il paraît que y a cinq jours rek am na beneen gaal boo xam ne tojoon na ci côté yooyu même famille boo xam ne Yoff la dëkk waaw. ñi ñu porté dispari ci yëf yi euh, ñaata lañ toll ci ñaata doomu aadama. Euh, Malikan ñi mu àndaloon deux personnes lañ limaamu c'est son fils aîné ak euh, Moodu ku ñuy wax Moodu Mar. ñoom ba léegi feeñaguñu. ñoom ba léegi feeñaguñu. mais bi may dénoncer aussi ay nit. ñàkk seen bakkan ci biir géej pendant trois jours ñu di leen seet ba gis kenn ki yóbbu ko hôpital ngay leen bala ngeen a jot seen corps foog ngeen fay autopsie bi il faut que loolu saa arrête il faut que ça arrête parce que aussi nit mënuñoo nekk ci loolu état bi bëgg a teg nit ñi def leen ay esclave aussi loolu du nit ñi ñi duñ ko nangu ay nit yu koor yoo xamante ni des fois ay koor yoo man am na koor boo xamante ni bii peut-être que loolu am na suñu beneen koor boo xam ne mosoon na dem mais elle kon en état de décomposition un peu avancé tuuti bi ñu loolu on nous a même euh, ay autopsie il faut que état bi au moins mu yërëm askan wi ci yenn yi ba au moins ñu mën leen koo. ñaata ngeen fay ci autopsie mille 25000 la ñu fay. 25000 la ñu fay autopsie moment boo xam te ñu ngi jël ay gaal mobiliser tous nos ressources yu ñu ay yoroon jënd ko essence mobiliser gaal yi pour ñu dem en pleine mer di seeti yeneen yi ñeneen ñeneen les autres disparus. état bi du ñu fayloo encore ay autopsie mais c'est pas normal. Malick Kane Ndiaye nappi woon te des ci géej gi bàyyi na gannaawam nag njaboot gu takku ak mbokkam yi nga xamante ni nag ñoom jege nañ ko loolu ñoom ñu ngi fësal itam ni ku ñeme liggéeyam la. maa yaayam ba ma nekk ba ma amee fukki at ak juróom laa ñëw fii ci kër gi sama doom yëpp fii laa leen jure seen bàyyi nag da leen a jàngal liggéey rek ak dem tool ba tool yi neexatulee. lay dem géej di dem géej di dem géej ba liy fekk ka fi mosula am benn tolof tolof nag mu am moo ko liggéeyal boppam. toogal ñun ñu ngi liggéey yow lan moo la war fi mu ne nii doo toog jàpp ba set julli di nu waaye moom nanguwul daal moom nanguwul man damay liggéey la xam liggéey jàppale njabootam loolu la xam. ndax xale yi dem naan ba nakaan papa géej gi bàyyil géej gi waaye dara ne leen yéen may bàyyiloo géej gi jaar na mu xulóog yow sax nangu la toog nangu la toog si kër gi lu liggéey rek ba nga xamee ne li ma la wax léegi ba tool yi dëgëree mënatu cee am mënatu cee am ci suuf si dara la daal dem géej léeg ñu dem jiwaala léeg ñu dem Banjul léeg-léeg mu toog si kër gi di liggéey rek musul la sonal kenn nag musul ne yaay tey aw ma dépasse musul ne dal li leen seen bàyyi yare woon rek se la ñu nekk. moom daana ma wax de ne ma xamoo ma de bu ma deewee nga may xam yow xamoo ma aussi man a kan kan xaw ma la naan xamoo ma bu ma deewee si may xam même sama doom ji góor ji sama taaw la àndal. moom it noonu liggéey dama ko daan wax ne que li ma dimaas xanaa ne ma awasee kër gi laa mënta toog mooy sama taaw bi moom laa àndal géej. bàyyi nag njaboot taawam bu góor la àndal ak beneen xale lu góor waaw ndax àjjuma bi ñu añee ba pare la fi joge taaw boobu mu àndal mi ngi naan ma maam maa ngi dem géej te ñëw ñaanal ma ndax maam jël mu baax ma wutal la dawal waaw ma ka ko dem leen te ñëw ak dafa xare rek ba dee ci xare bi di liggéey rek di daan dooleem musul ñëw ne yaay aw ma dépasse musul ne yaay dara lu mu am lu mu am rek moo ko liggéeyal boppam lu ko yàlla dimbali. ñu ngi ma koy nëbbata man lépp maay toog ci géej maay jàkkaarloo géej gi. mu koy nëbbu mais bu sama doom ji duggee génn duggaat génn ne ko foo toll rekk nag ma ko wax maa ngi dégg mu ne kaan gis naan gaal de ak mbaali waaw kaan ñu oo daa tas mu ne sama papa fan la jaaroon mu nekk ci boori wakaam boobu mu nekk kon ñàkkanan ka ndax moom tam day dem géej waaye jour moom demul loo wax mu ne du ma ànd ak sama papa dew ma man dew ma man gaal gi du ma si yéeg leneen loo xam ni naqari na loolu ñii di jege ñaale yi nappkat yi mooy li bateau étranger yi ak moo géeju Sénégal yi ba tax ñii di mool yi nag dañuy faral di dem fu sori lool ci biir géej ngir wuti ay jën ba moo waral sax ji yii di leen fa fekk. mool bu jëlee gaalam tëmbal ko jëm géej fu jën nekk rek dina ko fa fekk même s'il y danger li ñuy ñaan état mu arrêté accord de pêche yi gis nga accord de pêche yi nga xamante ni. les bateaux étrangers ñooy ñëw piller toutes nos ressources maritimes il faut que ça cesse. dafa mel ni sax lu ñu bëri loolu la ñu fësal wax ni jën ni mu ñàkkee moo tax ñoom dañuy dem fu sori ci biir géej boo ñàkk fa seen bakkan. déggoo noo seulement dañuy dem fu sori mais zone interdite yi nga xamante ni ay zone la yoo xamante ni dafa am jën sax dañuy jël risque dem fa fii seen gaal tojee kenn gaal waru fa euh, taxawaalu gaal waru fa taxawaalu non pas dafa sori pas dafa sori. soriwul mais ay zone zone mooy zone bi gën a dangereux pratiquement ci euh, ci ci géeju Sénégal bokk na ci bokk mooy mooy mooy mooy fi ñuy wax banque bi mooy fi ñaari géej yi séparé woo donc foofu dafa dangereux non pas Sénégal ngor fii ngor fii foofu la donc état bi il faut que mu arrêté accord de pêche yi xam nga bu ñu demee ba un président de la taxaw di wax ne Sénégalais duñu lekk jënu ton mais loolu c'est mal connaître le Sénégalais ba tax ne loolu moo tax ñuy signer accord de pêche yi il faut que accord de pêche ñu arrêté ko. ji li koy provoqué yëpp ñun ay at ngi ñu ngi ciy wax ay at yu bare bare bare bare ñu ngi ciy wax mais euh, dama yaakaar ne gouvernement Sénégal déggunu déggunu ñu suñu problème moo bari ci géej mooy moo y de problème ba tey sonal nañu mool yi sonal goo xamante ni bu ñu daa dem vingt kilomètres ñu ngi si cent kilomètres fi ne nii suñu digganteeg euh, jën yi la ba tey dox. ba mool yi fi mu ne nii day dugg dem foo xamante ni sax wóor nañu fi ñu dem fii ak njaboot ak ñàkk pexe moo fay dugal mool yi mais xam na ne foofu du suñu mais nag il faut ñu dem fa fa dem duñ jàpp te li ko waral mooy barata pes yi bari ci géej gi kese kese kese ba tey day mbëkk gaal matériel gaal yi di di am ak ñoom ay problème ci géej su ngeen gis ka ba tey naa ak gaal yi pes mag bi nag buy bu demee bay xeex ak bu ndaw bi yaa problème yaa problème yaa problème suñuy jafe-jafe dafa bari ci géej machine yi mën nu kaa gis fi mu ne nii boo yoroon 3 millions 5 sax doo gis machine boo jënd waaye yor sa xaalis bari mën gis sa machine xam nga yooyu yëpp day métti suñu côté baye machine yi yóbbu géej sax da ngay gis ko machine mu yóbbu géej wóor na machine bi normalul mais da nga koy yóbbu géej ndax amoo pain gisoo machine bu bees machine yi seer na defe na ci mool yi defe na yi daal lii nag du gan ci ñun chaque année catastrophe bi am mën nañ kaa ragal nag mais moyen amul parce que gisuñu benn sponsor wala benn benn moyen bu nu buur jàppale ñun gisagoon ko ñun waa Thiaré ñun gisuñu ko vraiment fay ñu faral di leen bàyyi xel rawatina ministère des pêches bi ngeen bokk ah ministère pêche moom moom am ah, à côté mu bàyyi xel côté bato yi daal bàyyi na ci xel nappagu mag gi daal moom bàyyi na ci xel mais nappagu ndaw gi moom ñun moom góoma na sax dégg nañu waaw pour les pêcheurs pêcheurs artisanal daal yaa ngi dégg oh, ministre bi dégguñu